asalaamaaleykum mbokk yi nga xarit di ñu safoo si 313 digital ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ne leen eh, dal leen ak jàmm ci lu gën a fës dañuy daal di ñëw ci avocat Ousmane Sonko yaa ko foofu noonu eh, ca cour suprême ndax buñ sukkandikoo ci El Malick Ndiaye mi nga xam ne moo yor moo yoroon kàllum communication parti boobu lee di ex eh, Pastef ba tax na moom rek daal dinay annoncé que ne les avocats d'Ousmane Sonko dinañ daal di déposer li nga xam ne maanaam dinañ daal di dugal ab rabat d'arrêt ndiki tey foofu noonu ca cour euh, suprême ba tax na boobu li euh, démence rek dafay daal di euh, dafay daal di jublu daal di neenal wala daal di ñàkk euh, nangu l'arrêt bi nga xam ne rek cour suprême euh, daal na koy euh, génne ngir rek daal di nangu radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi ginnaaw nag mu nekk ab décision boo xam ni gouvernement bi ñoo ko dal di jël lekk ci jugement bi nga xam defoon nañ ko Ousmane Sonko par contumace ba tax na El Malick Ndiaye moom mi li mu ngi informé que ni les avocats d'Ousmane Sonko ndiki tey bu 15 heures jotee rek dinañ daal di dem foofu noonu ca cour ab rabat d'arrêt mu nekk nag ab procédure judiciaire boo xam ne rek dafa daal di am solo rawatina ci cadre Ousmane Sonko bi nga xam ne dañ ko daal di euh, médiatiser ba tax na décision bi nga xam ne jël nañ ko ngir contester ngir euh, bañ a nangu euh, l'arrêt bi nga xam ne Cour suprême daal dina koy jël ginnaaw radiation Ousmane sunk euh, ci liste électorale yi mu nekk nag ab mesure boo xam ne rek gouvernement bi euh, ñoo ko daal di jël ginnaaw euh, jugement par contumace bi nga xam ne defoon nañ ko Ousmane Sonko ci mbirum Adji Sarr ci mbirum Sweet Beauté mu nekk nag mbir moo xam ni ay avocat Ousmane Sonko ànduñu ci benn yoon ba tax moo waraloon ñu daal di dugaloon ab recours foofu noonu ci tribunal grande instance de Ziguinchor juge Sabassy fay nag daal di jël ab ndogal nee dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale waaye tamit daal di koy delloo ak ak yelleefam boobu les décision nag la ñu gis que ne autorité yi maanaam ñi nga xam suñu kilifa di euh, bañ ba tax na ñu daal di dugaloon ab recours foofu noonu ca cour suprême euh, cour suprême daal di jël ab ndogal boo xam ne dafa daal di ànd ak l'état du Sénégal moo waral rabat d'arrêt bi nga xam euh, moom rabat rek mu nekk ab ab yoon bu am solo ab yoon ab yoon bu am solo boo xam ne dina daal di euh, tax ñu mën a tijjiwaat ab affaire boo xam ne ab dossier boo xam ne jugé woon nañ ko pare rabat d'arrêt boobu la dina daal di permettre à ce que ñu tijjiwaat mbir moomi li su dee dafa am li nga xam ne moom mooy ab jumte ab erreur ab ab erreur de procédure su ko amee rek mën na dañuy daal di tijjiwaat euh, boobu leen mbir les avocats d'Ousmane Sonko nag dañoo daal di njoxte nga ne que ne ab erreur daal dinay am moo tax ñu daal di dugal ab rabat d'arrêt ba tax na démarche bu am solo lay avocat Ousmane Sonko daal dugal la ñu visé rek mooy que ñu dugalaat Ousmane Sonko euh, ci liste euh, électorale yi la nga xam ne rek Cour suprême euh, daal dina ko koy bañal di kii 17 novembre passé ba tax na rek ñoom ñu daal di jëlaat mbir mi la yóbbu ko foofu noonu ca tribunal grande instance de Dakar li ni mel nag nga xam ne ñooy les avocats Ousmane Sonko maître Clédor ak ña nga xam ne ñoom la daal di àndal daal di dugal ab rabadere ci kanam tuuti lañ koy daal di déposé foofu noonu ca cour suprême bu ñetti waxtu daal di jotee fi dañuy daal di wàccewee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje ndiki ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye nag bu leen fàtte chaque fois di abonné sur 313 digital